jërë ngeen jëf mbokk yi ñu ngi leen di bëggee di leen ziar di leen ñaanal jàmm bu baax baax yéen ñuy topp à travers Leewtoo TV ak Wasaare Lamb ñu ngi leen di baalu ak wante ñu ngi leen di baal ak ci bis bu sell bi ñu jógee muy bisu tabaski te nag ñu ngi Bambey séeréer journée DVF production gis ngeen xale yi noonu ñu ngi noonu di dugg si ñu jël drapeau bi nag tuddee ko le grand champion Eumeu Sène le tête de file de Taï Singa Eumeu dégg naa mu ngi ci bunt bi mu ngi dugg si léegi incha allah di ngeen ko gis ci biir làmb ji wante combat spécial bi dañ koo tuddee le roi Sané Doudou Sané kon Eumeu Sène ak Doudou Sané fu ñu dajee yaakaar naa foofu dana neex dana yëngu dana xumb kon mbokk yi ñuy topp à travers Leewtoo TV da nga ñuy topp ñu jëlal leen dugg si mbër yi tuus combat yu ndaw yi dafa leen interview ci biir askan wi jëlee leen li nga xamante ne bii mooy grand combat bi aja topp leen ñu fii ci Leewtoo TV ñu jëlee leen làmb ji fii ci Bambey séeréer en exclusivité mbokk yi sponsor bu mag baa ngi noonu King Boisson ndeysaan tey ñu ngi fii ci Bambey séeréer ndeysaan ñu jël làmb ji tuddee ko Eumeu Sène King Boisson ngi noonu Arma ñaa ngi noonu ndeysaan di setal kër ay ci foot moom Arma ñaa macha allah ndeysaan King yëngal na réew mi waaye man Tampico man Tampico jaaxal na ma Tampico Sénégal yëpp Tampico la ñu utiliser Catalina bégee na bu baax a baax.

nee na ko sumekul coy Orly Junior ay ak Gandia yi mi ngi noonu premier combat de la soirée diggante Kaw Gourdin moom la ñu jàkkaar lool lamp moo ñu woon gannaaw arbitre sifflé na génn seen diggante ñoom ñaar ña ngay lawaato gis nga dafa mel ni combat bi nag njool la ak ndaama Kaw Gourdin la ñu lool lamp moo ñu woon gannaaw ayca mi ngi noonu arbitre sifflé na deuxième mi-temps ma Kaw Gourdin ak lamp kaw gourdin la ñu jàkkaarloo lamp woon ñu gannaaw ñoom ñaar ña ngay lewaatoo xanaa bi yoon moom war naa mën a jeex kaw gourdin lamp kaw gourdin lamp kaw gourdin def na demi flexion jogaat ñoom ñaar jàppante nañu ca kaw ndeysaan cey am la tête de file de si ngaa ngi noonu soo tot tot tot tot jiitu gis naa mu ànd ak lanjang duudu saane nga ca gannaaw cey cey lanjang nga ngi noonu ndeysaan doomu ndeyu am ma seen borom bawol <laughs> ndeysaan waaw oto am maa ngi noonu oto am maa ngi noonu mooy mooy xaamaa amaa ah, ngi noonu ndeysaan mbokk yi ama ñëw na fu mu min nag ndeysaan cey am ama ngi noonu ndeysaan mbokk yi cey cey noonu non non no mën nañu mën nañu bàyyi ba mu wàcc mën nañu bàyyi ba mu wàcc ama ngi noonu mbokk yi ndeysaan ama noonu ama noonu ama gi noonu mbokk yi ndeysaan cey ëm la tête de file de singa ndeysaan ëm am na lu muy am na lu muy xool dafa mel ni téléphone am lay manipuler ah ci téléphone am la nekk le vainqueur de Sa Thiès a gi noonu ngi noonu cey ama nekk bu xarañ waaw ndaanaan la ci làmb macha allah waaw ndaanaan la ci làmb macha moom ba seen voilà ba tey muy jege si lii nga xam ne moo di combat bi. Euh. dañuy arrangé di xool la war a dugg ci biir ak oto yi. waaw waaw loolu la ñu nekk ci ci organisation bi la ñu nekk. la ñu nekk nii mi ngi noonu. voilà ngeen gis ko ayca booy may leen ñu ñëw noonu may leen ñu ñëw noonu may ñu may leen ñu liggéey. may leen ñu ñu jege ëm. waaw buñ ko mënee ndeysaan waaye du mën a wax. waaw waaw nañu bàyyi bu mu dugg ba toog ba installé wu. voilà donc mu ngi noonu ndeysaan cey. waaw mu ngi noonu. maa ngi noonu. cey. waaw maa ngi noonu. tay si nga ndeysaan. wax na rek waa lay seetaan ëm. waa Sen Teranga ñu ngi lay seetaan en direct. voilà mu ngi noonu. ndànk rek. ay ca mbokk yi ñu ngi ak la grand Landiang Landiang ñu ngi lay ziar maa lay ziar sama mbokk bool bool bi waaw la yàlla dogal baa yaa ngi si jàmm maa ngi si jàmm waa kër Sëñ Bay Sarr ña nga fa ana waa Kuude ña nga fa baa ñu ngi si jàmm ak waa ak baal nañ la baal ñu ñu fekkee déwén yu bari amiin yàlla def ci Seydina Muhammad amiin amiin yaa rabbi tey yaa ngi Bambey Séeréer hmm. di dëkk boo miin nga ànd ak sa doomu ndey sa xarit dëmb hmm. seen hmm. waaw Bambey Séeréer nag dañ fay am événement boo xam ni ginnaaw bi ma leen nuyoo dañ fi am événement boo xam ne chaque lendemain tabaski dañ fiy ñëw bu Eumeu Sène ñëwee dinaa ñëw bu Eumeu Sène ñëwul dinaa ñëw parce que Pape moo toll noonu si ñun Pape suñu frère la suñu xarit la suñu lépp la ba pare Bambey séeréer bu ñuy bëree dañ siy daj ñoom ñun dañ koy yëg ñoom ñëpp dañuy booloo dañu ñaanal yàlla suñu borom may ñu dam kon tey bis bu toll nii bu amee ñun dañu war rek mooy ñëw ànd ak suñuy xarit man maa ngi ànd ak ku mel ni Pape Ngom ñu ànd jóge nga xam ko bu baax waaw mu am lu mu nekk Diourbel ñëpp xam ko mu mu représenté du rëy biir Diourbel mm-hmm. tey dañ koy sargal foofu sax jigéen ñi mbooyeen yi mais lépp ñëw ànd ak bi Sané ñoom Mame Góor ñoom Sa Bogal ñoom Eumeu Sène ñëpp pour soutenir Pape si bisam bi parce que Pape moo toll noonu si ñun waaw. diggante Pape Pape Diouf ak Taï Singa man ëmma bu amee combat heure bu ma ñëwee mbaaw dama ko fay fekk mu taq ci rib mais waa bokk ndey ak baay aussi Pape xam nga suñu la ñu nag moom a bokk ndey ak baay lamb boole wuñ te lamb duñ tàqale waaw Pape dafa nekk ku baax koo xam ne c'est la lu si xew bu gessoo gis ñu ni suñu famille lu si xew bu gessoo gis ñu gis ko kon c'est la famille la rek bis bi nañ chaque jour koy bokk ak moom bis li fekk ñi ngi fi chaque jour dañ koy bokk ak moom waaw ñu xeebaluñ ko dara parce que xeebul suñ dara waaw loolu la koo koy def nag ni mu la defa eh, tam teraanga bi ci yow la njëkkee yow tuddee na la drapeau waaw chaque année mu tuddee drapeau tuddee na ma ko na ko jabaru Eumeu Sène na ko ñëpp waaw moom moo noonu si ñun waaw moom nekk suñu frère toll noonu si ñun moo tax waaw c'est bon waaw jaajëf ayca naay am ñaari kàddu rek bala dem <laughs> champion ayca gaynde gaynde ñu ngi lay ëm waaw jàmm ñu ngi lay baalu ak yaa ñi la baalax leen baalax naka tabaski bi waaw di sant yàlla bu baax nag baa xar bi mbëkk la di julli si yonent bi di gën suñu waajur di nuyu Sénégal yëpp di yàlla yàngul suñu tabaski ñu fekkee at yu bëri kenn bañ a manqué di baal àq ñëpp di baal ñëpp àq di ñaan yàlla suñu borom boole jégal waaw yàlla def naa ñu koy fekk at yu bëri kenn bañ a manqué waaw mais dégg naa seen ni da xar xar bi laal na leen waaw bu la neexee ne seen bu la neexee na ngomeen ngomeen yi ngomeen yi ngom ak fay benn la rek léegi loolu. non xar yi moom xam naa tukulóor yi la laal pël yi. tukulóor yi dëkk min di Bambey séeréer. sa dëkku xarit sa dëkku doomu ndey. ñu koy wax Pape Diouf borom DVF production. waaw yëg-yëg bi tey lan la. non am contentement rek parce que suñu frère la. Mm. dañoo bokk moom ndey ak baay. Mm. waaw mu nekk nit koo xam ne kenn si ñun. Mm. waaw moo tax bisam suñu bés sax dañ naan sotti bisam suñu bés waaw moo tax tey ñëpp ñëw. waaw parce que Pape moom saa yi xewlee rek dañuy teew incha allah. bis eh, la invité Alburax donc kon nañu dem ndax bis bi dafa am fu ma toll. non su rakk la dañu bokk ndey bokk bàyyi. waaw nu ñu mel maag moom mënuñu ko wax. waaw men ko ak sama famille men ko ak sama famille yëpp nag ak xarit yëpp. waaw xarañ moom suñu pape moom suñu pape Pape Diouf moom suñu la. waaw borom baax la ma ko fekkee mbaaw day mel ni day mel ni beneen nit. non c'est la Pape moo ñu ji loolu nit ku baax la ba pare dëggu am yar waaw doon nit ku correct ku neex àndal wax dëgg yàlla nekk nit bu mën nitam aussi waaw ñu ngi ñaan yàlla lafal ko cat rek waaw mais nit yoo xam ne wax dëgg yàlla bu neex jëflante lu quoi nit ku baax la waaw nit ku baax la ku baax sax waaw nan moo la gën ci moom non yar bi ak teey beeg dal bi ak jullite bu mu jullite waaw ba pare tamit ak dëggu bi waaw loolu la. nangoo liggéey bi. nangoo liggéeyam absolument ñafe ñafe kat la. non jàmbaar la man liggéeyam tamit. non jàmbaar pire mooy moom. <laughs> mais mais am amateur yi nam nan la de. non fii la benn maan raw. Ah. xam naa nañ ma trop maan raw. mais caaw li na da am. non non dina baax incha allah. waaw caaw li na da am. mais waaw waaw 30 secondes yeggale am. am <laughs> am lay daw mais caaw li faaw ñu dugg ci. ca mbokk yi Eumeu Sène a ngi noonu la tête de file de si nga dugg si na ama ngi noonu ndeysaan mbokk yi dugg si na Bamey Séeréer ànd ak Pape Diouf borom DVF production ndeysaan aca mbokk yi maa ngi noonu maa ngi noonu mbokk yi Doudou Sané la àndal le roi Sané cey Doudou jëlal ma Doudou ndeysaan noonu ndeysaan mbokk yi borom dëkkaam jeg doole borom dama am doole am nee na ngeen may ko am nee na ngeen may ko na duudu dem ay ca duudu ndeysaan gis naa saa boo xal ca gannaaw gis xale yëpp ca gannaaw gaynde ziar naa la mbaa yaa ngi si jàmm ay ca mi ngi noonu ndeysaan cay duudu ay ca duudu la fan série ngi noonu am ngi noonu mbokk yi cay am Pape Diouf la àndal mais mais mais man man ma Doudou Sané lim sol Doudou li nga sol dinañ ci waxtaan après cey Doudou ndeysaan mbokk yi Bambey séeréer yëngu na tey Bambey séeréer yëngu na champion baa ngi noonu roi des arènes baa ngi noonu sëtub Samba Xoyaan baa ngi noonu ndeysaan cey lanjang lay waxtaanal am na lu muy wax ak lanjang ndeysaan ndeysaan waaw waaw cey cey duudu cey cey am waaw waaw jalalel jalalel Pape Diouf ay ca waaw waaw ma ngi noonu mbokk yi ndeysaan ma ngi noonu Mor Ngom a koy tëggal ndeysaan waaw waaw Mor a koy tëggal tambour major am a ngi noonu Mor Ngom a ngi noonu waaw waaw ëpp waaw waaw ndeysaan waaw waaw cey ama seen a ngi noonu mbokk yi ndeysaan mu ngi saliyee public bi ndeysaan cey duudu ndeysaan ma ngay saafantoog fans ya ndeysaan ndeysaan mbokk tay singa cey am waaw waaw cey am ama ngoog ndeysaan ndeysaan mu ngi noonu mu ngi nuyoog fans yi moom nag dafa bëgg ay fansam ndeysaan cey duudu ay duudoo ngoog finaliste Claf Gaston Mbengue mais xoolal la duudu sañse jalal ma sañse duudu saane ba borom borom kam jeg doole xajal xajal leen ko dama daa bëgg a fecc ndeysaan ndeysaan ndeysaan waaw waaw yëkkatil caméra bi tudd waaw waaw del cadre ndeysaan ndeysaan mu ngi doon nuyoo maa ngi nuyoo ndeysaan waaw waaw ñi mu fi fekk saa maa ngi lay ziar ndeysaan mu ngi saafoon toog na ngi autorité yi nga xamante ne bii ñoom la fi fekk ndeysaan waaw waaw waaw waaw Doudou Ngok la fa série de Diofior Yalkam doole finaliste Kalaf Makan Beng baa ngi noonu waaw waaw cey Doudou Doudou Sané Doudou Sané Ngok le roi Sané ndeysaan du doo ngi doon mbokk yi waaw waaw du cey duudu tàng na de cey duudu ndeysaan waaw waaw ambiance de Doudou Sané fii ci Bambey Seereer stade bi Doudou nga yëngal stade bi Doudou nga yëngal stade bi cey déggal sa boxal cey sa boxal ndeysaan jikkoom la wallahi azim damay nekk si tarbiyu ko barki Sëñ kii lépp la defal wallahi azim tey du bokk ñu ñoo bokk tey wàllam daa war a toog si kaw seesu roi bi mu ñëw toog ñuy bokk ngir moom bilahi maa la ko wax. tàccu ama ngi koy tàccu ndeysaan jëlal ama ndeysaan ama ngi duudu tey 100 pour cent la andi fii ci Bambey séeréer ndeysaan waaw waaw cey duudu ndeysaan Doudou yëg na ci kaw tribune ba di fecc ndeysaan waaw waaw

micro nga dem micro nga dem. mais loolu daa am borom ko toog cey Allô, allô, merci beaucoup. Loolu moo nekkoon plaisir combat de la soirée. diggante Modou Lo ay ca doom maa ngi la ziar wër a wër mbaa yaa ngi si jàmm sant yàlla wër mais mais yére bi yére bi ah yére bi trois morceaux bi moo fi jaar Pape Diouf fi jaar billahi DB lu mu liggéey baawul dëgg la billahi mais da nga dugg yaram mel ni dafa gën a non instant yi dañoo kontaan xam nga tey euh, sa leader sa kilifa sa tëb dëfil nga nag moom fenn au contraire maa war a wàccee sama bop ci suuf kii warul tuusay maa war a tuus billaay def na lu mu war a def lépp barki sëñ Bamba daa àndal doole bu ñu yor yëpp moom la billaay am tëb dëfil buy liggéey da ngay liggéey kii billaay wallaay bu ñu namee ragal kese dañoo war a rendi tay si ku ko ku fa ragal rek dañ kaa war a génne tey tamit ku ñuy roy ku ñuy topp musu rëkkilal mbër kon loolu daf ñuy yokk saa su nekk daf ñuy yokk man dama lay koy wax tout le temps dañoo am leader bu mët leader am leader bu mët leader kon tey bu ñëwee toog ñun dañoo war a yëngal ñu xam ne Tay Shinger ñoo ñëw billaahi moom instant yi daa waroon teg fee 16 ñuy seetaan ñuy yëngal ba làmb bi tas billaahi barki démb bi ma ñëwee sa kër andil la drapeau bi maag Pape Diouf danga ma ne sama sama sama sama général laay àndal te bu ñëwee Bambey Bambey dañoo xam ne ñëw nañ mais ni ngeen ko waxee noonu ngeen ko defee wallahi azim man bu ma xamoon ne moom yëre français lay sol ma sol kilote eh. billaahi kilote lay indi damaa ñëw gis ko mu sol yére ma ne non mu ne ma non bàyyi ma xàlli leen yéen jàll nga xam ne daa ñàkk ki ñaan billaahi wallaahi mais dañ koy ñaanal yàlla lu des si kar yam lépp rafet gars yi nañ bàyyi xel tout le temps dañ koy wax ne mag bi mag bi mag bi mais mag bi dina leen sonal. barki Sëñ Fallu mag bi dina leen sonal. mag bu bàyyil boppam. mag bu respecté bu am hygiène de vie. bu respecté boppam. teg entraînement ci yoon. kooku boo koy jàpp ne ay damay bërëg moom di di jàpp ne ay mag dangay nax sa bopp. billaahi mais nee sànq dama laa gis nga bàkk ba pare sa kam jeg doole boobu nga maye ko def nii mën na la affaire bi yow la. nga ne nga si nga ku fa ku fa dugg bala ngaa yegg si ci man ngay jaar mais ne loolu daam borom. loolu nekk dëgg gisoo man tout le temps damay wax gars yi nekk am dëgg doole comme ku ñu defar loolu ku ñu defar ku ñu defar ku defar suñu yaram bu ñëwee dañoo war a bàkkulaa suñu doole ne kii la. waaw waaw kii la kon affaire bi ki ngay topp tout le temps ki nga nekk si ginnaawam dañ kaa war a jox cër li moom la waaw du ñu ñëw di dara ci ginnaawam bés bu taxawee ñu wàccee suñu bopp benn dellu ci ginnaaw. ndaxte tamit ormal bi da si am solo ndaxte kenn du kenn a toog ak ay sëriñam toog si kaw ci suuf nga war a wàcc wallaahi. mais mais gars yi sonal nañ ko de franc ngi koy laaj boobu ba léegi mais coow li bari nga ne nga ne nga moo àgg ci am ma faa mu jaar ci man. man damaa ne mag bu bugg a jot am day war daa war a war a ñaan ci njëkk pour mun a jot ci moom mais boo buggee dëgëral sa kaddu mu jaar ci man ma tame la wàcce la si suuf après nga may barage am ku bugg a man comme wax rafetul ci man lay jaar ba pare doo waaw mais yow fi mu toll nii bu avance su ko. ah bu avance Duudu jël ko. bu ma fekkoon fii ma ñibbeeg moom du ma tàggu. bilaahi bu ma fekkoon fii ma ñibbeeg moom du ma tàggu. billaahi du ñu ragal nag billaahi boo ragalee dañ laa war a rendi kese jege dit baalu ñëpp ak si weeru koor euh, si tabaski bi ndaxte itamit depuis loor ba tey génnuñu pour baalu suñu fan si yaak ndaxte saison bi métti woon na kala fi métti na trop ñu tenir ko am ñoo xamante ne tey dañ leen ak mais dañ leen di baalu te dañ leen ñaan borom bi la lu waay mbébét ci lu baax suñu borom defal la ko ba mu kawee sa njorto wallahi azim ku ñu indi fii moom muñu fayam mais final bi final bi non final bi day am incha allah mais mais sa nee na du bëre de non du bëre mais ñun dañuy entraîné tout le temps man nee naa ko bay teg stratégie dangaa dugul taay si nga mais boo duggee taay si nga rek doo doo teg stratégie pour yow waa ji feem buy teg fem ñun tout le ñu dañuy entraîné. pour yow day teg fem quoi. day teg fem. daaw lu mu soxla rek. te yàgg yàgg dina dikk. li ma lay wax na ci kanam la yàgg yàgg day dikk. Hmm. yàgg yàgg mu neex. Hmm. ay ndaw lañu day liggéey tout le temps di respecté suñu bopp. Hmm. waaw entraînement rek moo ñu war. leneen waruñu. billaahi. mais xar bi mbaam bëgg ko la. <laughs> xaar bi mënu maa mbëkk sportif bu mel ni man man meew rek ama sonal bu ma naanee meew rek sama biir bi daw. ok waaw mais bu dee leneen moom garaawul. meew kese la sonal. <laughs> meew kese moom li ci lu ñëw lu ñëw baax na. lu ñëw dugg. cay duudu. <laughs> voilà yal na yàlla doon jaajëf jaajëf merci beaucoup merci beaucoup ci am complicité bi. bokk ndey bokk baay rek te xam ni sport moom mooy boole dafa war a boole mais warut a ñu nekk samay rakk yu ma déggal na jox dëgg yàlla waaw ku ci mel ni ñam saa boggal xam nga ci mel ni John Sina booy Joola booy Kaasa xam nga ku jublu na mu fay ñëpp samay rakk lañ c'est la famille waaw ba juddu tamit aussi vraiment waaw mu nekk loo xam daal ñun famille lañ famille famille waaw mu ñu gis am euh, di def lu jafe ci mbër yu mag yi su meeku takk mbeng ngemb dugg ci biir écrit bi mbër ba gën a ndaw ci écrit ba sax muy contact ak moom waaw mais loolu moo ñu war xam nga di ñaanal tamit suma rak bi doodu maa ngi ñaan Sénégal yëpp nañ ma ko ñaanalal yàlla na ko yàlla musal ci cat mais na gars yi ñu seen bët rek xool waaw nañ ko ñaar rek après des ñibbi seen bët yi seetaan champion la di wax waa Pikine yëpp nañ gën a génn jàppale ko parce que champion la waaw Pikine yëpp génn mais bii di ñëwaat nag moo war dàq moo war di ñaan wax Sénégal yëpp nañ ma ko ñaanal yàlla defal ko ca daal waaw mais champion la ndaw la te ñeme na lu muy def te bëgg na ko aussi. waaw sa diggante ak lan la. suma su ma rakk la kii moom xam nga su ma rakk la su ma jarbaat la waaw loolu la ko waaw mbokk la deret la. waaw nag ku baax nag vraiment ku gëm làmb ku bëgg làmb waaw ba pare nekk champion waaw ba pare caractère champion yëpp mi ngi ci moom maa ngi ñaan daal xam nga bëgguma ko catu mais na ko gars yi bàyyi xel saa bokkal tamit aussi na ko gars yi bàyyi xel waaw champion la voilà waaw na gars yi ba bàyyi bu baax a baax ratel ratel tam nañ ko bàyyi xel am na ay nekk ci équipe bi yoo xam ni dama gis am ko tàllal micro rek au lieu mu wax ci boppam sax mais ci mbër yi nekk ci gannaawam lay wax saa bokkal nañ ko jox combat ratel nañ ko jox combat duudu nañ ko jox combat la war a demee noonu demee ba pare tamit aussi am na loo boo xam ne gars yi war nañ leen tester tournoi man gis naa ay champion yoo xam ne tournoi bi bii romb nii war naa am beneen boo xam ne nii. comme ñan waaw bëgguma tudd tur. mais gars yi ñii booy nii. nañ defal tournoi bu saf saf. waaw après gars yi nañ gis. mais Doudou Sané caatu yara. waaw combat la caatu yara suma rakk la waaw. parce que euh, nijaayam nu mu tudd nii ah euh, nu ko waxee tur bi laay fàtte sax su waaw waaw su ma xamante nañ mu ngi nekk parc an nit la mais nag sport la waaw man nag su ma may moom duudu moom mooy ëmb seen ëmb seen ay duudu. duudu mooy ëmb seen. ëmb duudu waaw mooy saa bokkale saa bokkale ëmb. waaw loolu quoi ñëpp ay frère lañ quoi ñoo bokk nañ ñoo bokk baay mais daal li mu ngay ñaanal mooy yàlla ko yàlla defal cat. day yàlla defal cat. 30 juin ñu jëm ci combat bu mag Tapha Tine Balla Gaye ñoom ñaar ñëpp nga ñu doon décortiquer euh, le choc de gladiateur boobu. waaw mais fii nag du fi xaj parce cootaan. combat bu neex la nag. combat bu neex a neex a nekk. ñoom ñaar ñëpp laale ak ñoom ñaar ñëpp ñu état de forme. te combat a que le a gagne. waaw que le def na sortie bu garaaw de. kan ci Pokola Baldé. waaw Pokola champion la waaw Pokola tam nag gars yi bàyyi xel ah. la. waaw gis ñaar yéen a open press seen combat bi jàll. waaw ñëpp samay rakk lañ rek. waaw mi keneen ak kenn ku jàmm par press tombé ak sama combat ñu war ko doon dañu benn rek. waaw parce moo ñu ji quoi. ñu gis Franc la laaj Doudou Sané ne wala moo yegg ci yow nañ la jaar ci moom ba pare. kan si Franc waaw mu ngi mu ngi mu lay laaj Doudou Sané na bala moo yegg ci ci yow na bëre ak moom ba pare loolu jaar na Sénégal yëpp ko bëgg gaa xam nañu ko la ca mbokk yi bébé Modou Lo ak Ndiaye Tine Ndiaye Tine moom feetee càmmoñ bébé Modou Lo côté ndey joor suñu ndey joor Ndiaye Tine bébé Modou Lo ñoom ñaar ñu ngi lewaatoo ndeysaan ñu ngi déglu wante Ndiaye Tine Bébé Modou Lo ndeysaan bokk Ndiaye Tine Bébé Modou Lo arbitre sëf la na ngay waxtaan ak ñoom jox na leen avertissement verbal sifflé waat Ndiaye Tine Bébé Modou Lo Ndiaye Tine Bébé Modou Lo Ndiaye Tine Bébé Modou Lo mbokk yi ndeysaan ñoom ñaari ñi ngi déglu wante songo amagul jàpp amagul dóor amagul Ndiaye Tine bébé Modou Lo journée DVF production lan dema tabaski fii ci Bambey séeréer ñaari xale yaa ngi déglu wante jàpp amagul song amagul Ndiaye Tine bébé Modou attention ñoom ñaar weccoon nañu ñoom ñaar weccoon nañuy ku Ndiaye Tine Bébé Modou door coup perdu attention xale ba jàpp na jàpp na jàpp na lan la bëgg lan la bëgg laa ilaaha illallah Ndiaye Tine Bébé Modou Lo jàppante nañu xale ay naataango lañu Ndiaye Tine bébé Modou Lo attention lay laa xëy la xale yaa ngay dóorante ci suuf wàññil gaay nee nga wàññi ndeysaan ñaari xale yi jàppante nañu xeex xeex bu sew ci biir ci suuf Bébé Modou Lo Ndiaye Tine Bébé moo ñu woon gannaaw Ndiaye Tine moo wone kanam Ndiaye Tine kon mooy njool mi Ndiaye Tine mooy njool mi bu combat bi jeexee am seen day wàcc tuus ndeysaan bégal fan si loolu am na solo ndeysaan Ndiaye Tine bébé Modou jàppante baa ngi bëgg a yàgg laa ilaaha illallah Ndiaye bébé Modou attention laa la illallaah waaw waaw Bébé Modou Lo daan na Ndiaye Tine jël ba rëy na daan na ko ndeysaan mbokk yi trio magique baa ngi noonu am seen sa bokkal ak Doudou Sané ndeysaan mbokk yi fii ci Bambey séeréer tey ñu ngi noonu di waaj a def ambiance Mor Ngoma ngay tëgg wante Mbayang Luma ngay way Doudou Sané ngay summeeku cey Doudou waaw waaw cey cey tay singa cey tay singa ndeysaan waaw Siteu Mimara Bébé Diène esquive jogaat ñoom ñaar ña ngay lewaatoo ñaari ndaanaan lañu Bébé Diène Siteu journée DVF production fii ci Bambey Sereer attention Bébé Diène cookaas na Siteu moo takk morso bu weex bi ci bopp bi am kiisaar bu xonq bi Bébé Diène mooy ndaamali ñoom ñaar ñu ngi lewaatoo attention Bébé Diène cokkaas na laay laaxee la laa Bébé Diène Siteu Bébé Diène Siteu laay laaxee nañu lan moo am jàppante nañu ñoom ñaar. Bébé Diène jàpp na Siteu jàpp na Bébé ngay wut ngemb ca gannaaw Bébé ngay wut ngemb ca gannaaw Siteu lan la bëgg lan la Siteu bëgg attention mboot attention mboot la ilaha illallah Bébé Diène Siteu Bébé Diène Siteu la ilaha illallah oh, jege nañu saako yi oh Siteu jàpp na Bébé Diène jàppagul Bébé Diène moo lay woon ginnaaw nii Bébé Diène mu ngi arrière mu ngi noonu daanu na Bébé waaru na waaru na. ayca mbokk yi combat spécial baa ngi noonu. mbalka maak ordinateur mbalka maak ngemb bu zone bi ordinateur la ñu jàkkaar lool ñoom ñaar ñi ngi la waatoo Mbalka maak moo ñu woon gannaaw ndeysaan ñoom ñaar ñoom ñaar ñi ngi lewaatoo ñi ngi jéem naxante jege nañu saako yi drapeau Doudou Sané bëre le roi Sané Yal Diofior ndeysaan Malka maak wàcc na ci tànkam léegi siggiwaat cey Mor Ngom waaw waaw cey Mor Ngom attention Malka maak ordinateur malgré maak ordinateur mbokk yi ndeysaan mbalka maak ordinateur ñaari xale yi lewaatoo rek la ñuy def gum jàppante guñu dóorante guñu ndeysaan ña ngay jéem a damye ña damye balka maak door na waaye dalul balka ak ordinateur mbokk yi ndeysaan ñaari xale yaa ngi lewaatoo diggante mbalka maak ak ordinateur attention na ordre door na gauche droite la ilaha illallah corne door xale bi génn la ilaha kor na ko door ko mu génn waaw waaw arbitre sifflé da jël da jël avertissement mbalka maak da kodoma yabo yabo hazırız Annem kodoma dönüyor Kodoma yabo yabo hazırız Annem kodoma dönüyor Kibiraya kibir kapıda yürüyülere kay Kodoma yabo yabo hazırız Annem kodoma dönüyor Kodoma yabo yabo hazırız

Oh,

ay ca mbokk yi jërë ngeen jëf grand combat baa ngi noonu liñ doon xaar ci ay weer doon ko xaar ci ay bis doon ko xaar ci li nga xamante ne bii mooy ay fan yu bari waaye li olof Njaay di wax loo bañ mu yegg si bul ko jàppal bis grand combat baa ngi noonu diggante Ordi Junior Bébé Reug Reug arbitre soufflé na génn seen diggante ñoom ñaar drapeau Eumeu Sène la ñuy bëre DFF production moo organisé fii ci Bambey séeréer tey lan dema tabaski 2024 ordi junior attention ordi door na daw jël ordi jël na mboot lay laa xëy la laa ordi junior ey Reug Reug mboot na ko lu xew Reug Reug ordi junior Reug Reug bien fait vite fait waaw waaw ordi mboot na ko mboot na ko mu rëbb mboot na ko la ilaha illallah oh oh combat bi amul une minute amul une minute amul une minute amul bien fait vite allah mi ngi noonu Reug Reug daan na Orly Junior la ilaha illallah yaa ngi noonu concerté wu nañu ba pare commandant baa ngi noonu ci biir géew bi ndeysaan mbokk yi seen liggéey rafet na commandant gendarmerie bu Bambey seen liggéey rafet na macha allah. waaw waaw jox nañ Reug Reug victoire jox nañ Reug Reug victoire oh Reug Reug daan na ko Reug Reug daan na ko waaw waaw maa la ko wax ma ay ca mbokk yi mi ngi noonu grand combat ba jeex na diggante Ordu Junior ak bébé Reug Reug champion gannaaw ba nga bëree suñu borom may la ndam kaddu gu njëkk gi lan waaw maa ngi sant yàlla bu wér a wér di sant sama ñaari waajur bu baax a baax a baax. di sant ñëpp daal. bu ñu ñëwee ci nañ ñëw ci combat bi li nga li nga bëree cant gi mooy mujj dinañ la bàyyi nga sant li nga bëree bi dafa ar bi dafa soufflé mu daw song la nga tëgg ko mbot. signature ba dama laa wax ne man maay lamb man maay bëree man maay bëre man maay duma man maay daan billaahi waxoon naa la ko dama leer maay xeex may daan. dama la ko doon wax chaque jour mbër laa lamb laay def man damay bëre. damay bëre mbër la di woo waa Bambey Séréer ñu gën cee jàpp waaw ñu gën cee da nga xam li sa adversaire ko. naa koo xam yàgg naa koo xam waaw lamb la rek. mais xam nga ne daanaan nga daan. di ko ñaanal jàmb bu wér a xam nga ne daanaan nga daan. champion la lu fodder nga daan. mbër laa man mbër laa. waxoon naa ne wax ji moo fi nii rek mais diggu géew ga man maay def lépp. man maay def lépp billaahi waaw maa ngi sant ñëpp nag. léegi nag foo teg sa bët fan nga jëm. assassin. rëg-rëg bu ngoy moom tur bi daa ñàng rëg-rëg bu guy njoogu rëg-rëg bu guy njoogu mbay rajaxe bu seeseen ñëw xale baa ngi nii dof ñooñu diisuñ ci yow bëri doole ñàkkuma fit am naa lépp mën naa bëre am na jàppale bu baax a baax di sant kii billaahi di ciy jàpp bu baax sant gars yi yëpp daal waaw waaw wax ju bëri bi nag mënewuma ko quoi waaw waaw adversaire bi maa ngi koy encouragé di ko ñaanal jàmm di ko wax naan lamb la woon rek bu jeexee jeex na quoi. ay ca mbokk yi jërë ngeen mi ngi noonu journée DVF production la ñu ñëwoon fii ci Bambey tey nag nekkoon lendemain tabaski fii ci Bambey séeréer tabaski 2024 Pape Diouf yow yaa organisé woon bis bi ñu dugg ci ci bisimilahi rahmaani rahim. génn ci ci alhamdulilahi rabil alamina kaddu yu njëkk yi lan la. waaw salaamaaleykum bisimilahi rahmaani rahim kaddu yu njëkk yi moom mooy di sant yalla bu baax a baax a baax waaye commencé lam ci bisimilahi rahmaani rahim jeex na ci alhamdulilahi rabil alamin kenn gaañu ci jafe-jafe benn amu ci lam yëpp neex na combat yëpp normal la tegu na ci yoon jël yu rafet am na jël yu neex am na kon maa ngi sant yàlla bu baax di jan population Bambey waaw bawol yëpp laay wax sax waaw parce que fii boo jur Jurbel fii boo daanaka Dakar fu ne gars yi jóge nañ fa ñëw fa mais donc maa ngi sant yàlla bu baax di sant ñëpp vraiment macha allah. mu mel ni préparation lamb ji yombul woon. non préparation lamb yi wax nga lamb moom dafa metti parce que lamb moom ci coono lay commencé ci coono lay jeexee mais nag alhamdulilahi rabil alamin parce que même bu jeexee ci jàmm ak salaam rek amatul coono quoi mais vraiment lamb ji moom macha allah dem ba léegi dem ci journée bi ba léegi ba añee ba pare. lañu ñëw fii commencé installé bagage yi defar enceinte bi commencé indi seize yi bi ñu xëyee faj lañ yeewaat ñëwaat nekk ci journée bi ba ñoo ngi dëgg a pare nii nii nii donc alhamdulilah ñu ngi sant yàlla bu baax ki nga tuddee woon bis bi di sa nit di kenn ci yow euh, di Eumeu Sène ànd ak rakam Doudou Sané waaw Eumeu moom sama grand la sama lépp la sama mag la sama lépp la waaw Eumeu moom mooy man maay moom même mooy Doudou mooy man may ñoom parce que Eumeu moom sama lépp la daal mënu maa wax ci moom parce xam nga yàgg nañu trop trop trop mu def ma rak ci rak waaw ma def ko mag moom fu ma soxlaa damay teew man it fu ma ko soxlaa moom du ma xeeb ak lu ma ko mun di wax rek da ci da ci day réagir rapidement duub nag nekk sama lépp duudu moom mooy sama futur roi des arènes ndegam fexe naa ba ëmb rek roi des arènes du mois de so ah, incha allah ñoo ngi ciy liggéey ci côté yëpp pour jàppale ko ci côté yëpp mu doon roi des arènes parce mhm. ñoom ñaar ñoom ñaar ñooy man maay moom mhm. waaw sànq ëmb dama ko ne yéen gën neex ci Pape Diouf mu ma sincérité am kóllëre ba pare nangoo liggéey waaw même li mu wax ci man moo nekk ci moom parce que Oumar boo gisee ma gën koo bëgg moom dafa doon jàmbaar ba pare oyof oyof na simple na oma boo demee këram ci buntu kër gi nga koy fekk mu toog ak booy yi di teg ataa di waxtaan mm-hmm. biir këram di jafe yow mais moom jafewul mm-hmm. loolu moom a gën a frappé ci moom ba léegi noonu laa ko xamee changé wul nen menti ki mm-hmm. oyof na simple na respecté na doomu aadama donc nag nit bu ngeen di dund nga ne xale bu ndaw mu cinq fonk la loolu def maa fonk man def maa fonk ba ma xam ne def maa fonk ay njabootam noonu jabaram xuja madame Ngom noonu mm. ak ñaareelam bi nga xam ni vraiment allah ñoom ñëpp daal mm. mu nit ku baax a baax a baax a di ko gërëm a baax a a baax a xam ne yaay Mbaye Babacar sama doomu de sama xarit mm. su xamee katte naa yow la ba ma la waxee ne sponsor bi ma wax ne yow te dal nelaw sponsor di nga ko am wax katte laa la ma ko wax mu def ko sama doomu ndey la dangaa jékki-jékki woo a ne ma la ma la waxoon lépp sotti na nga teg sa tànk dox ko ba nii lépp sotti kon vraiment maa lay gërëm bu baax a baax parce que tey xatu na Diourbel bari nay combat mais teewul nga bàyyi fa lépp ñëw gérer ñu événement yi ba heure yi nii nag ma lay gërëm bu baax a baax a baax di gërëm sama gars yi waa Ndondol Actu sama gars yi vraiment ay jàmbaar lañu vraiment maa leen di remercier di leen di ñaanal yàlla ngeen yàlla jàppale ngeen dem ba am ay télécom ñëpp te vraiment yéen a ngi ci yoon bi quoi parce que ay jàmbaar ngeen mën nañoo xaar yeneen journée incha allah fii ci Bambey Séeréer journée yu yu dàq bii nag xam naa bu dàq bii du yomb waaw journée yu waaw waaw bii moom moom moom moom mooy sanitatu bi moom bii moom macha allah xam naa moom bu amee bu dàq bi moom dina gën a neex mais nag ñoo ngi ñoo ngi ciy liggéey bu baax parce que chaque année day day gën a évoluer parce chaque année vraiment dañ ciy gën a jàng quoi waaw chaque année day dañ ciy gën vraiment ñoo ngi ñaan daal muy gën a progrès parce que fii mooy sunu village fii lañ xam fii ñu fii ma taxaw nii fii lañ daan footballé nekkee ay xeele fii lañ daan footballé fii lañ daan sàmm lii sooy la fii lañ daan béyee fii suñu tool la fii laa fanaan gétt mm. fii bu ma fi taxawee sama yaram day daw parce que fii def naa fi lu ne ba mu nekkee xale fii laa daan fanaan guddi heure bi dalaan mm. may jaaru sinon may lakk gerte mm. ñu dox dox booy teg ay combat bon dama ci sant yàlla suñu féete lay doon même bu ci ñàkkee ay millions sax ñàkkuñu di dara parce que suñu féete la mag yi gën nañu xale yi gën nañu jigéen yi gën nañu ñoom ñëpp ñu sañse ñëw toog gérer événement bi ba lépp jeex jam kon nag alhamdulilahi rabil alamin Baye Fall maa ngi lay waaw ba hmm. <laughs> coordinateur de coordinateur production des productions maa ngi lay ziar bu baax a baax macha allah. le coordinateur de DVF production yow yaa monté combat yëpp macha allah ñu gis ne combat yëpp a neex lan mooy secret Badou. waaw bon nga may ma rek ma commencé ci sant ak gërëm pap ci confiance bi nga xamante ne bi moom la am ci man hmm. ba tax mu ne ma loo def noonu la hmm. man tam combat may monté c'est pas le hasard man jàngalekat laa. Je suis un professeur d'histoire et de géographie au lycée de Gat ici à côté mais nag jaar naa ci bëre bi ma demee ba nag université ba xam nag ne jàng rek moo des si laay soog arrêté bëri en 2009 am na champion bu ñëw tuus fii tey naan nii géew bi hmm. daan naa ko mu jooy ci ay kanamu magam kon bi ma demee bay monté ay combat war na ma pap na mbir da koy jox ki ko mën ak ki ko moom hmm. comme man promoteur la hmm. yow takk nga ngem jaar nga ci affaire yi yaay gën a xam booy combat boo monte baax na mhm. Mhm. boo monté baax na ma tànn nag booy yi nga xamante ñoo gën a xarit nag ki tund bi ma boole leen journée bi wone na ko waaw mais yi yomboon na wala yombul woon métti woon na lool parce que des fois ma wax ak mbër ak adversaire am mhm. ñu ne ma il faut ñu gisee ma fexeet ñu def déplacement ñu gisee kii dem kële dem su ma wooyee ke téléphone du jël mhm. mbaa su ma wooyee kii mu ne noo xoole ma keneen waxak ak mbër ba ne ko sa avance ba nga jot ci mhm. loola fomm mhm. monte combat métti na lool lool moo tax Abdoulahat mi monte combat yi ne ko sa idole mu ngi fële waaye mu ngi bëgg a dee <laughs> dara yomb ci métti na trop ay ca ay ca dans l'avenir suñu kanam euh, lan ngeen di waajal ak yan innovation ngeen di dig amateur yi surtout waa Bambey waaw dans l'avenir moom ginnaaw jàppante nañu ak yéen mm-hmm. waa Leewtoo TV mm-hmm. Eumeu Sène di wëlëre Pape mm-hmm. moom ak Doudou Sané waaye la grand dame ñëw jàpp ci muy Catalina nga xam ne King Boisson tey moo tax bés bi taaru kon suñu xel gë suñu xel gën naa dal ba ñu jàppante ak waa King Boisson te loolu xam naa ki sa la jaare ñu la ciy félicité bu baax a baax a baax baax a baax ñun ci waaw loolu loolu feeñ na mm-hmm. te wane ngeen ko mm-hmm. kon li ñuy ñaan yàlla mooy mm-hmm. yàlla kattanal ñu may ñu fekki ak tal ba bu déwénee buñ ñëwaatee mu dàq ren ndax ren moo dàq daaw ñu ñaan yàlla déwén dàq ren te ñëpp fekke ko incha allahu rabbi waaw di kontaan ci waa Bawol yëpp nag ndax dinañ ci fair play kenn gaañuwul kenn xuloowul kenn xeexul lamb am na coow nii nii waaye noonu lamb moo baaxoo noonu mhm. waaye lépp yéen a ko defar yéen waa Leewtoo TV ndax yéen a jël Bambey Séeréer wan ko àdduna bi yëpp kon lépp yéen la Eumeu Sène nag moom dañ koy beral loxo di koy ñaanal yàlla combat bu mu amati na am ndam ba ba muy tekki ngembam mhm. chaque combat na am ndam loolu lañ koy ñaanal jërëjëf kontaan naa <laughs>